gis ngeen coow li nga xamante ne moo dox ci digganteeg Serigne Abdou Khadir Mbacke ak jëmm ji di Serigne Thioro bu ñu ci gaawut wax si si ndox mu sedd fi mu jëm du àgg ndax mbokk yi dafa am jëmm yoo xamante ne dañoo bëgg Serigne Abdou Khadir boo duñ bëgg dara metti ko am ñoo xam ne dañoo bëgg Serigne Thioro Mbacke bu duñ bëgg dara laal ko tey Serigne Thioro bu yëkkatee benn kàddu Serigne Abdou Khadir yëkkati benn kàddu te ñoom ñaar daanaka ñoo bokk kenn ki nga xamante ne ñoom lañ yaakaar tey ak ëllëg muy Serigne Touba Mbacké kon yaakaar naa mbiru politique bii waru leen mën a xaajale wala ñenn ñi nga xam ne ñu yëkkati ay kàddu di ci wax lu ñaaw war nañ war nañu ñoom war nañoo bañ a nangu ñi nga xamante ne ñooñu di leen tàggale ndax Serigne Thioro Mbacké am na ñu ko yaakaar Serigne Abdou Khadir Mbacké am na ñu leen yaakaar politique fii lañ koy fekk te fii lañ koy bàyyi am na ñoo xamante ne duñ nangul lenn luy metti sëñ Abdou Khadir noonee tamit dañ ko ne ñàkk ki nga xamante ni moom moo di sëriñ Cheikh Mbacké sëriñ Abdou ak ki nga xamante ne moom moo di sëriñ Bass Abdou Khadir ak nga xam moo di sëriñ Cheikh la ñuy wax ñoom xam nañ ko kon ñun ñii wala ñenn ñi nga xamante ne mënuñu cee wis ndox mu sedd nañ ci maandu moo gën ñi leen di séparer amaana sax ñoom ñaar réeroowuñ wala peut-être ñu ngi waxtaan mais nit ñi dañuy xool kàddu yu rafet di ko yëkkati dox seen diggante ndax ñoo bokk kenn ku ñu yaakaar mu di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu suul nit ñi nag dañ daan mu ngi nii dee su ko wax ko am gën ko amul gën jatta wax la bëri na waaye koo yee ba mu yeew nga daal di koy bàyyi muy nelawaat li waral ma yëkkat sama kàddu googee moom mooy tey ñoom waruñu woon daw di topp kenn mais ñoom lañu waroon daw di topp mais àdduna bu ñu joxee nag ba léegi sëriñ ñooy daw di topp ci ginnaaw politiciens yi xamatuma ci dara ñoom li ñu yor moo ëpp politique li ñu yor moo ëpp alal muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul lu am solo nag laay wax te ko diñ xam ne carrément que dëgg boo ko déggee da koy xam dëgg boo ko déggee da nga xam ne lii dëgg la keneen ku leen waxul la ñoom ñaar benn lañ waxu leen dara keneen ku leen séparé nag nekkul ci dëgg nekkul ci yoon ñoom ñaar kenn képp lañ te duñ mës a séparé wu